alors ñu le président makisal façon bi mu jëlee Sénégal façon bi mu diriger Sénégal faut pas oublier le discours du 3 juillet 2023. bon yaakaar na lépp de bon après. faut pas oublier ce discours là. Mm-hmm. le président Macky Sall c'est sous son magistère la coowu troisième mandat jeex ci Sénégal te dootul amati. Ça, au moins, c'est quelque chose que nous lui devons, cette reconnaissance la xam nga euh, conseil constitutionnel même l'appellation de cette institution la dafa am lu mu la loo xamante ni daf koy joxe lan moo tax tout cour yëpp tribunal yëpp ñu koy tuddee les cours et tribunaux au conseil constitutionnel ñu ni conseil constitutionnel parce que di leen wax les sept parce que place su mag ñi la. conseil constitutionnel ku nekk xam na ni da kuy waxal kuy wax sa axulaayu taala ñun tënku nañu ci li nga xamante ni nii moom la ñu sant parce que loolu mooy règle du jeu règle bi doon lañ ko établir woon du ñu ñëw ba agsi fii di ci indi leneen mais nag am nañu droit apprécier ci li nga xamante ni moo fi xew. jël acte ci li nga xam moom moo fi xew conseil constitutionnel ay mag lañu la finalité du droit c'est de régler les problèmes mais ce ne pas d'en créer coowul élection coowu politique la dem ngeen dem leen ngeen waxtaan yow ak acteurs yi ciblé wu ko neewu ko demal nga waxtaan ak diw demal nga waxtaan ak diw dem leen ngeen waxtaan entre acteurs vous me proposez vous nu proposez une autre date le président convoqué dialogue parce que une élection c'est plus que euh, ëpp na affaire wu nit ñi nga xam ne ñooy def politique romb nañu c'est l'affaire de tout le de, de, de tous les Sénégalais mu woote dialogue ñu dem ñaa ñaajo dof comme ni nga ko waxee mu ñëw jël avis lan la doon coûter conseil constitutionnel parce que tey ku nekk ku waxal yàlla di nga xam ni ce conseil là liggéeyatuñu li ñu fi jot a li ñuy def démb teguwul ci xam-xam teguwul ci sagesse. waaw ah bien sûr. dañu outrepassé seen ay prérogatives non seulement dañu outrepassé seen seen seen i prérogatives mais dañu agirul comme des sages. lan ngeen doon xaar ci ñoom. li ñu doon xaar ci ñoom weesuwul par exemple manque de sagesse mënut a weesu ay kilifa yu toll ni ñoom di jàpp datu élection présidentielle di ko jàpp jouru Pâques moo lay wan ni liggéeyuñu xam-xam liggéeyuñu sages xol la ñu doon liggéeyee fayantoo la ñu doon liggéey bi vrai que ni nag on ne fait que prendre acte ndax le fait de choisir lu jour du euh, le jour u Pâques suñu mbokku chrétiens yi ñu nag ñoom ñoo bokk réew mi Pâques doo amee bis boo koy méngaleel ci xew-xewu diine tabaski la wala korité est-ce que benn président wala benn conseil constitutionnel wala benn ministre am na sañ-sañu jàpp bisu élection bisu tabaski wala bisu korité je dis loolu rek déjà wane na ni li ñu leen jox loolu dafay wat ci erreur yi nga xamante ne ni defoon nañ ko à l'avance. waaye nag lii lépp lii lépp nag c'est pas à cause de ça. ah Pape Alé waaye lii lépp nag. lii lépp nag lii lépp nag lii lépp nag président Macky Sall ah, moo dafa laaj xam nga la moo tax c'est à cause de ça parce que pour respecter campagne électorale bi dès le 21 jours yi. oui fallait mu nekk le 31. loolu moom moo tax ñoom ñu fixé le 31. mais nekkul par exemple affaire pàkk wala affaire tabaski. du loolu non attends je non loolu moo tax. ñu bàyyi je vous en prie non je vous en prie je en prie dama dama am xalal nañu d'accord ci lenn. muy lan. set sénégalais nekk ay sages. ñuy jàpp bis bu toll ni bisu élection présidentielle lu mu tuuti tuuti tuuti war nga jël sa matuwaay bu toll ni am na yenn fête yoo xamante ne ni am na bis yoo xamante ne ni du tombé ak moom. yow li ñu la jox du fekkente ni fees nga sa place non coïncidence boobu warul mën a am.